a ak gouvernement bi waxtaan ak gouvernement bi Macky Sall man Assane Ndiaye Sikulaay maay wax ak yow maay wax ak yow dund bi seer na dund bi seer na askan waa ngi jooy sa njaboot gaa ngi jooy Macky Sall président sasker waa ngi jooy ndakaaru ngi jooy ndara ngi jooy kawlax ngi jooy tuuba ngi jooy waa marsil waa ngi jooy man Assane Ndiaye Louga may wax ak yow nañ wàññi dund bi ceeb bi seer na ceeb bi seer na ceeb bi seer na ceeb bi seer na diw gi seer na sukar si seer na kafe gi seer na mboolem yi jaay seer na mag seer saskan wi sonn nañu saskan wi sonn nañu lott nañu kilifa yi sax ñëpp sonn nañu yelwaan kay sax kenn saraxatu leen yelwaan kat yi sax kenn saraxatu leen lépp ser naa président Macky président a Sall yow laay waxal président Macky Sall yow état état man Assane Ndiaye maay wax ak yow man Assane Ndiaye maay wax ak yow ceeb bi ser na ceeb bi ser na li ceeb bi seer na yéen a ngi nuy gaañ yéen a ngi nuy gaañ yéen a ngi nuy gaañ askan wi sonn nañu askan wi sonn nañu askan wi sonn Macky xalaatal Macky Sall xalaatal président xalaatal te bis xam ne bis dana ñëw ñu jàppale la te xam ne bis dana ñëw ñu jàppale la te xam ne bis dana ñu jàppale la président xalaatal diw gi seer naay kabe gi seer na sukkar si seer naay lépp seer naay lépp na président ma Sall man Assane Ndiaye Sukulaay maay wax ak yow lu gaa ngi jooy lara ngi jooy saatol fii ba waalo fii ba waalo fi biir fi ba Linguère Daara Jolof Kawlax Ndangaan ñëpp a ngay jooy kamasa yi ñëpp a ngi jooy yombatul ñëpp a ngi jooy corona ko yóbbee corona bi ko yóbbee corona bi moo nu ko yóbbee ma wax ma wax ak yow askan wi ñoo wax ma wax ak yow askan wi ñoo wax ma woo yow du maay wax du maay wax askan wi ay wax du maay wax askan wi ay wax Macky Sall xalaatale ay ah, Macky Sall xalaatal réew maa jooy réew maa jooy sunu Sénégal gii mbooleem réew